这样。 la gën waaw jéegatuma la fenn. waaw nekk si tunnel rek li jëm ci faa. waaw mais yoo ko ba li dël nag mooy. dilu 5 millions après max mooy yóbbu livraison afro ma ko waroon mooy loolu ragal la loolu man la sant bu ma tracé bi dilu 5 millions mooy sax c'est du lourd rek Paul yow la sant mission boobu yoo tu penses pas que ni booy dafa la bëgg a kàmbal booy wala li mu def li nga defoon bi fàttewu ko de est-ce que xam nga loolu fa nga dexee sa xel quoi. dama lijjanti loolu Paul mën a kàmbal te diir jëlu ma ko pour moom de ma ko jël pour sama bopp moo ma récupérer cinq millions yi. ah mais attends man comprendre ma la mais toi aussi da nga pare pour deux cinq millions yow.

ku nekk jël deux cinq cent deux cinq cent. encaisse seen loolu deux millions yi baax na man sama cour bro. waaw mais attends afro day ñëwaale wala. afro day ñëw kay. Hmm. bien sûr amul ci kon baax na foofu. jàppal na cinq millions yi am nga si loolu nga ko am si man xam nga loolu. non je sais sama nit nga booy yow ñoo far quoi gis naa da nga may yéene quoi. xam nga sama position heure bii nii booy. xam nga sama position quoi dama soxla gàncax gi. gis nga kii nii sax ko yow lu mu fexee jot itam sax wala mayram noo xëy so alhamdulilah foo nekk nii ah waaw ok waaw baax na wuyu ma waaw waaw taxawal taxawal foofu si côté jardin fi ñu daje wala fa passé waaw xaar ma foofu maa ñëw grand maa ñëw xaar ma fa rek mu ñëw après naa l'expliqué waaw ah, ok d'accord maa ngi ñëw d' a bu la neexee maa ngi gàll di la xaar pour ñëw waaw ñëwal ok maa ngi la xaar looy def fii. alors je pense pas que ça te regarde. dama la ma la fi gisaat. mais yow yaay kan nga fekk ma sama seet naan ma ay ma la fi gisaat. am ay contre le mur. naa bu baax li nga koy yow même sama jàmm nga naa ma ay kii nga am droit yow di ma fure yow. ba dégg ma ci yow nag. waa waaw la mbaa jaamu la. waaw jaamu ak sàng ni nga doon waxee si téléphone bi xanaa da ngeen amaat problème ak borom kër gi ani Omar. non amuñu problème ak borom kër gi fay nañ lépp mais Omar laa gisul de démb quoi maa ngi koy woo mais téléphone am wala moo tax mën naa laaj ndax xam nga fu mu ne wala bu fekkee na démb ba léegi démb ba tey looy wax nii pourtant démb ñoo nekkoon mii il m'avait dit que su paree day retourné si waat ci kër gi waaw démb si ngoon laa ko mujjee gis te moom en bu na rek guddee daf may def signe baa ma woo moom doy na waar di xaama woo woo naa ko ba sonn est-ce que boo essayé di nga ko jot ah qu'importe nañ essayé waat ba xam lii de sonewul sax Omar mbaa mu ngi ci jàmm gar Omar mbaa deewul wala mu accident bi. non bul Omar il va bien mu ngi ci jàmm gisuñu ko nañ dem déclarer ko police. non nous xaar rek. nañu xaar Zal les choses sont déjà compliquées. démb ba tey nga ne yaakaar man maa ngi ñëw dem. Ah, kon xaar ma mu génn. مرحبا oui man la. inspecteur et moom. inspecteur. xam nga li la fi indi. non téléphone bi foo ko jëlee. ban téléphone. téléphone bi ñu la fekkal foo ko jëlee. mooy Samsung bi. oui. dama koo jënd. foo ko jëndee. sama fournisseur moom ko livré. am nga papier buy firndeel ni sa fournisseur ñoo la ko jaay. waaw. ah am nga papier buy firndeel sa fournisseur ñoo la jaay téléphone bi. waaw am naa koy mu ngi place bi.

man fekk ma woon moo ko adressé woon te man xaw ma loolu. xaw ma sàcc de man xaw ma sàcc. wax ma foo jëlee téléphone bi. fekk téléphone bi sama sama benn xarit moo ma ko jaay. sa benn xarit nu mu tudd. sama benn xarit bu ñuy wax Zal moo ma ko jaay. Zal sa xarit la. waaw sama xarit xam nga ko bu baax. waaw xam naa ko bu baax kon cela suppose que xam nga fu mu dëkk. waaw ah, xamoon naa ko de. xam nga fi Zal dëkk wala xamoo ko. waaw naa ko d' accord après nga suivre ñu dem. waaw da nga may tëj noppi. envoyé le junju sur ñu andal binem zala mais aussi Beta. Oh. Beta. Beta ci lo nek. Koy li de yalla Fan yeb ma nga lay call boy di la message nga baña wuy. Lolu dara dama jappo rek yaay lo sama gaal waaw ok after on se retrouve. yow taa yow tamit yow dafa mel ni bëgg maa tontu si li ma la la ma manque ma chérie a man ak yow mënatul nekk nabatuma la. ma wuy li ngay wax ni xam naa ne yow sa xol yow yàlla moo ñu boole ci booy ma daaneel booy daf ma ma màcc booy yu baax yooyu la nam si yow

pare yow sa golo bi nii moo tax ngay manqué respect yow. mais eh sama yow ku réew nga yow tu nous emmerdes yaa ñëw fi fekk ñuy waxtaan. eh gis nga waay. yow. ah. su ma la rombatee nga naan yaa ngi doxaan sama kër yow. te ñaari donj yooyu lay dagg yaa ngi may dégg. yaa may dégg. avancé. te xale Yo, sa affaire feeg lan afro. On euh, mais ça c'est trop ça ne se fait pas en plus de quel droit yo, tu me surveiller du ma sa dame, te du ma sa jabar. waaw mon territoire la. yaa ngi dégg a buy du tey nekkatul man ak yow yow rek leen xamal sa bopp sa yëpp ñàkk fayda ko sang ba léegi nga si bon juste dama la woowoon rek xamal di la xamal ne que job bi maa ngi ciy sentir sa bopp nice quoi. gis moo li ma la wax rek job bi amul perte moom à chaque fois da nga ciy sentir sa bopp yaa ngi dégg tey nag bagage yi mooy loolu mais xam naa après dinaa jox gën a sadik yooyu quoi ay corps rek laa ok bon en fait dama la bëggoon laaj benn question bu ndaw parce que looloo gënoon tax sax ma woon. mooy yow matos yi may jox yow fan nga koy jëlee. gis nga da ngay jóg wala jóg ah.

naka mu lépp jàmm sant ah? alhamdulilah foo ne man maa ngi nii di daaje ci sama ah oui ma pourtant maa ngi fa sax dama ñëw fekk bundu tëju yaa ngi fa yaa ngi ma waaw maa ngi sa gaal nii fekk ma kenn quoi fekk ma fa kenn ma fekk fekk fi Omar day waaw waa jàmm waaw jàmm la jàmm la maa ngi fi di la waaw maa ngi waaw tout à dégg nga Amina pardon ma gis la waaye yaa ngi kóol mhm. nice sa Omar maa ngi koy boobu lay jot ma ko xam nga fu mu nekk yow non non gis ma ko lan la woon bàyyi noonu am problème eh il paraît que nga am problème habilitant problème ku la wax loolu yow man mu bëgg xam dama koy xam hmm. loolu laa xamul woon ah. habilitant maa ngi moom problème sama doo ko jël sa bopp te mañ si dugg habilitant doo dugg lu sa yoon nekk yow Birita ban problème la wax mu ne ah oui ma loolu c'est du passé bàyyi mu jàll. non c'est pas du passé Ron kon laa ko di ko menace au téléphone te loolu Ibs yaa ko waral. ay menaces Ron moo lay tuddal yow loolu bu tapé boobu noonu. Amina avant seetlu waay nag dina dimbali ma. yow nag ko dal jotee mën nga koy dogaaleel. mu ngi menacer ni waaye ah. parce que caaxaan. yow da ngaa doon xamu ko taxawee waaye ci dama tekk. waaw daf la rëcc wala lan yow am na. waaye mer nga nam ko rëcc man. sama bu dox a jot yow pataas nga yow. eh yow da nga dof wala yow am na eh eh eh dawul bi moom eh eh da nga dof wala mbaj wala yow ah boobu eh. Tak top lo wala ba mbeno on top lo la ya may deg deg nga nga namu ni tag sa loxo tag mo tar la wax ma rek Lila lagi. Lila lagi. Lala ada sih. Oh. Wax ji bëri bi mënu ma moom saag Kamu tak ban saag. kan sama loxo yow kan. xale bu nar a lekk ndey sa wax ba moom Bahkan kan mau yang saag ba sa sama yoon nekkul ci saag xaw ma kan moom moom saag bi wala nga fay xaalis bu ma livré ko sama yoon nekku ci kan ngay liggéey kan ngay xaw ma kenn ñoom dañ ma fay ma joxe saag bi dinaa la sama yoon nekku si. yaa man dugg ma gis leen ne ñaar nga ne ma a jooboo kenn.

xoolal léegi lay mujj ma laaj la fi saa nekk boo ko waxul mais yow la kat yow dama bëgg ma lekk sa dara wala ne wax ma ko nekk lu mujj tey ma la ko laaj sinon sa bagage laay la gën a salaat yow eh wax man nekk tegal sama téléphone dafal sama yoon fexeel ba nen gisee na ñëw waaw waaw naaj sama xaalis sax mu waaye sa xaalis temps dama jàppoon quoi moo tax man la ko bëggoon indi depuis loolu sa xaalis mu yegg man nii su fekkee da nga koy soxla nga ñëw récupérer ko. Iba su bëggee sa goro sa baabu nooy dem paase am ko indee gi sama xaalis soxla ci dama am problème ma taw so bëggee ñu daje si jaaykatu ngooñ ma jox la sa xaalis. Déw yaa may xaar la ko war ma jox sama xaalis ma xaar léegi nga man ma ñëw di dama dox wala yow. nee dama am problème si wetu jaaykatu ngooñ soo ñëwee nga fekk ma foofu ma jox la sa xaalis bi. mais wax naa lan nga bëgg yow tamit instant bi nii. arrêté ma léegi. yow laal yow nañ ko yow benn business laa bëggoon nga tracé ma rek yow nan dajee si jàkkaarloo ngooñ vite fait la rek boo paree nga yow yow wóor naa la ba defee ma duñ ma rëcc ana foo waaw wuy ma léegi nañ nañ nañ tase ko ci sa buntu gaal waaw maa maa ngi di dem sa buntu gaal nañ tase suñu. si ana ba ñëwal rek yow boo ñëwee naa la expliqué wuy ma police man lay wër instant boo ñëwee man naa la expliqué lu mu demee ñëwal police. Moustapha jarama jam tan wonɗa hono ah, golle ɗe créas tampani toon aɓere sirni ala alhamdulillah euh, to banque gimmimi quoi mi yano déposé kalis o e compte ma hen pour ñoom Omar euh, bëgg naa wax naa leen fin du mois bi vraiment ñu génn kër gi non fay nañu sax mais seen arrière yi dafa bëri te loolu sax m'empêche de travailler bëgguma loolu ko moo tax ma bëgg leen génne no c'est damay bañ juste ñu yàq kër gi moo tax c'est que mën mën nañ papa mën nañ ko loué ak ñeneen parce que am naa ñeneen ñi nga xamante ne dañ may laaj te ñoom dañ may tardé souvent souvent te loolu day yàq sama liggéey ba. ok d'accord ok merci beaucoup. Paa de lu mu fi mënta wax booy dama leen di génne gaale maa leen gën a rëy foofu xam ne man maay kan. lezzetli yok. Mais tu m'as pas dit ça, Batay. Là, moi, je suis plus de l'assiette. Je comprends pas ça. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Qui est là? Quand je suis là, je yow ban téléphone nga jaay yu la wéy di jox. mais man je ne comprends pas ku lu bees sàkk la pourquoi police dama wër. daal nee naa la Willy sàcc la fenkat la téléphone yëpp yu mu lay jox daf kaa sàcc yow da ngay def doon waa lan. Willy sànq maa moom ñoo nekkoon mu ne ma ku lu sàkk la maagam moo ko jox. yu waxul dëgg day fen woo ko ah. woo ko bul hésité woo ko

ana tey rek la guddi bi tey mu jeex place fii ay jigéen gis na fi nekk c'est pas sûr wóorul mënu ma laa héberger ana xoolal garaaw cool dama duggal sa gaal amul problème naa ko sol zaal dama góor jigéen ñi wala yow. da nga doon jox ndey sax bi yow. va te faire foutre yow ak sac bi nga damay sac. Max loolu ngay def fii kan moo wax ne may donc c'est de toi yaa doon jël marchandise di ko jaay bravo. damaa jël dara. booy bii la moom moo dóor lépp nga wax ni man. doo laa nekk di lijjanti nii. bu noonu bokk yow. ma da ngay dóor. da ngay sëw nga yow moom nga war a nopp. yëpp yow yaa ko war a. mënoo nopp yow. Zak. Fapal daa eh, sa gat yow. dañu sama gémmiñ. yow lii yëpp yaa ko war a. Hmm. nga jël ne ndey booy bi ma ci génn naa ma ay noppi. Kobel Rol moo jox sañ pour ma livré ko bu doon benn sa ginnaaw mu yor na copain gars yi ñëw agressé yow yaa mën ndey dul. génneel sama sac nga jox ma sama eh, ngay def yow monté ngay di am la J'en ai rien à foutre de tout ça.